la xewoon démb ca buntu wal fajri Diop Taïf dañ ko invité woon ca émission balance moom ak euh, waa ji ñu naan Gadiaga Cheikh Gadiaga man maa ngi ko gën a ràññee ci mbiru Adji saari yi ko gën a ràññee vraiment mm, Pape Ndiaye nag ñu ni dafa daal tëddeewul njaaxaanaay ca émission ba maanaam daal leen Cheikh Gadiaga doon yàq Ousmane Sonko ba ca ña fa teewal Ousmane Sonko bëggee addu da leen a baare loolu lii la ñu wax ba tax na daal euh, ñu wan leen réaction bi am ci buntu wal fajri démb te dellu si yow yaa sabot émission bi yow Pape Ndiaye man Diop tey maa moom moo sabot émission bi bàyyi moo wax mu yow yaa sabot suñu émission Cheikh Mbacke Gadiaga bi muy ñëw dañu ko doon wax yow yaa yow yaa yóbbu ay parents parents yi jóge Malika ñiy tënkee ñiy Rufisque ñoo nga manqué leen de respect yow mi yow Pape Ndiaye yaa def lépp yow yaa yow yaa def yow Pape Ndiaye yow mi yaa sabot émission bi yow respecté parents yi respecté wu ñu yow ñun ñu am seen i doom tëj leen jaay leen doole nga yàq émission bi université Mbacké Ndiaga yow yaa sawu émission bi yow est-ce que yëgal na la. foogoon na ñëw ci euh, jotaay bi ndax jotaay bi dañu ne dañ ko jagleel détenu politique pas politique parce que moom dafa ñëw di politique. dafa ñëw di régler ay compte politique am dafa ñëw bokk ci parti politique di xeex politiquement alors que ñu ngi ci émission justice war a wax détenu politique ku ci nekk nag ci ñi nga xamante ne seen i jamono jóge fa ñëw man dama jàpp ne euh, lii li ñu def tey ñaaw na. Euh, may def ni Cheikh Mbacké Kadior man du ma yafal agresseur. du ma yafal force occulte yi ñuy wax man laay yeew di wër prison yi di leen jox ñu lekk dans les quarante six départements kon man yoruma ay agresseur mhm. ay bal ay frère laa fi yor Pape Ndiaye c'est un escroc li xew justement foutisme képp la ak manque de respect l'administration notoire de Walfadjri émission bi c'est une émission suivie partout au Sénégal même dans les détentions même ñi nekk rëbës man man nekk naa rëbës dugg naa fa trois fois ñëpp branche nañu si naan Walfadjri nekk un mur de lamentation suñ bëggoon tëj Walfadjri barke Seexul Xadim man Diop Tall ak ak ñun Pastef patriote yi ñoo jiitu fii barke Seexul Xadim Walfadjri télé askan la mais Pape Ndiaye dafa saboté c'est un vendu c'est un lâche te montré na ba léegi c'est un lâche li nga ñàkk nag doo ko am bokk si àdduna mooy confiance wóolu gi ne Sénégal yi wóolu banañ la gën nañ lii bu am ñaay def yow la ñuy xaar yow nga faj yow. nga jël sa responsabilité jël na sa responsabilité. ñun ni ma ko Walfadjri dañuy exiger pour ñu dàq Mame Ndiaye ci groupe Walfadjri parce que dafa ñëw a invités pour que nous parlions de la situation des détenus politiques au Sénégal. Il en a profité pour inviter un malfrat mhm. qui est venu cette émission là. dëgg la et Pape Ndiaye le savait très bien. tey père de famille gis ngeen ñii ñëpp ay père de ñi ngi jóg Kër Massar ñii Pam Ndiaye toroxal na nii àdduna bépp dèjà gis nga maire bi gis nga. ndax saa yu ñu xëy nii dañ suñu doon soo fajal ñu commencé. voilà mi ngi noonu loolu mi ngi amoon démb ci émission euh, balance euh, euh, defe naa waa ji ci biir ci balance wax na ko nee na émission bi ko sax taxoon a jóg mooy détenu politique lañ doon waxtaanee ñu indi Cheikh Gadiaga muy défendre ay cause politique xëy na loolu indi réeroo bi ci li ma xalaat mais jàppoon naa ne daal Pape Ndiaye invité gaja Gadiaga muy wax xalaatam jàpp mu ni moo war a indi lii ndax moom ab animateur la buy joxee xalaat ndax lii Assane buñ ko bàyyee nii muy continuer di wéy kon dinañ dem ba kenn ku bëgg a joxeeti xalaatam ci réew mi dina ko joxe waaw xanaa Pape moom dañ koo tooñ. Diop hmm. Taïf mii ak i naataangoom dañoo tooñ Pape Ndiaye. waaw Pape Ndiaye it émission bi jamono ji fii mu toll uh, ñoog Walfal Fadjri war nañoo jël yeen responsabilité ndax mbooloo mu toll nii kenn waru leen a éviter dajale leen fenn te bokkuñu si luñ bokkuñu gis-gis. Hmm. tey jii mën nañ faa xeex wala ñu jéem a dóor Cheikh Gadiaga wala ñu jéem dóor Pape wala ñu dóor a jël keneen. te gisoo fi benn sécurité ñii si biir palaato ba gis nga ko mbooloo maanaam fa mel. ak coow la fa am. ba nuñ génnee nekk si buntu kër bi gisoo fi dara sécurité. te loolu du yoon. Mm-hmm. jamono ji fi mu toll nii da ngay éviter ñu yem ñun ñoo def seen émission bu yem ku nekk dem ñibbi. Mm-hmm. mais pam kii Diop Taïf mi Diop Taïf mi ni mu mooy dafa ñëw toog ñu toog Cheikh Gadiaga toog. Mm. ñu ni ñii kat ñooy ñooy kaasal détenu politique yi détenu politique yi lu tax mu am mooy ñi faral Ousmane Sonko. ñu ñëw farak Ousmane Sonko ñooy détenu politique yi. kii kan la kii mooy Gajaga. kii mooy Gajaga kii farak président Macky Sall mooy contre détenu politique yi. waaw détenu politique mooy ñi farak Ousmane Sonko dañ leen a jàpp tëj leen. ñi farut ak Macky Sall ñu bàyyi leen ñi farut ak Macky Sall ñu loolu demewut noonu kon il nga indi ñaari cas yi. Mhm. moo tax Pam Ndiaye indi ñaari cas yi mais bu Diop Taïf di wax Cheikh Gajaga da ko diglu mu wax ba àggal. dëgg ko mhm. kon nag bu Cheikh Gajaga wax it dañ ko war a bàyyi mu ba àggal. bu waxee ba àggal bu ñu ko joxaatee kàddu mu ni Cheikh Gadiaga li mu wax amul daal di leeral lam sa mën a leeral. mais yii ñu def nii yëpp jëru ko Pape Ndiaye émission lay def bu leen invité suñu bëggee ñu dem ñu dem suñu bëggul ñu dem dem. mais mënuñu ñëw dajale leen ñoom ñëpp kenn ku nekk bëgg ni li nga bëgg dong lay wax loolu mënut a nekk. Mm. ku neex nga dem wuy ji invitation ba ku mu neex nga ni invito émission Pape du ma sa dem moom mu de chronique dem yoonam. Mm. mais li ñu bëgg ni ginnaaw ànd ñun euh, day day bàyyi loolu du fi amee Pape Ndiaye day continuer def ay émission di def ni mu ko bëggee defee ni mu ko neexee comme éviter bu la neexee dem bu la neexul nga bàyyi mais am na si loo xamante ni du yoon ak kàddu yi nga xam ne góob tey fi yëkkati na ko jëmale ko loolu du dëgg du yoon Pape Ndiaye day nekk di def ay émission da daan def ay émission ñoom ñu say dem di si gis seen bopp di kontaan di zibile kon tey ji bu ñu si gisul seen bopp dafa am ñeneen ñu si war a gis seen bopp kon ni ñu doxali nii ñaawlu naa ko trop te incha allahu rabbi si si pare pour rentrer ko pour euh, pour affronter ko affronter leen ñoom dinaa leen indi si plateau bi ñoom ñi ñu nekkoon ñu xam ne man duma Pape Ndiaye. li mu la dóor lépp humour bi a sëlëbee euh, léegi lu humour bi nga ci bëgg a dugal pourtant nag alaaji euh, euh. man man xabaar yi. moo ma ko jox ni ma Pape waa ji day wax waa Pastef bi day wax mu leen xaar leen déglu leen nga man moo ko jox xabaar man xam nga man lii dañoo dab. moo ma Diop envoyé naa la ko xoolal Pape Ndiaye dafa invité ñii mu leen invité waa Pastef bi di wax Cheikh Gadiaga naan ñii ñoo daal Ousmane Sonko daal Ousmane bi. léegi bi waa projet Sonko bëggee tontu mun ko ay eh, déglu leen noppi <laughs> yaa ma jox xabaar bi man nii naanal naanal léegi Assane noo ma mën a joxee xabaar bi ci nii nga ma ko joxee tey jëlaat position yëngalal naanal day am lu ñu yëngal de <laughs> Assane aay na ndox mi da nga ci bool ndox daanaka tey ndox mi bala ma ëpp mooy ah. bu rey sa bopp waaw naanal. bu paree ma doon <laughs> Assane ah, ah doy na nag ma jox la ba village bi wala. déedéet ma mi ngi noonu jërëjëf Assane maa ngi lay masawu ndax man li ma joxoo ak mii nga taxawee doy na waar alaaji. noo gisee taxawaay bi eh, après ñoom Diop Taïf am ginnaaw émission Pape Ndiaye bi. dafa mel ni li Assane wax it feeñ na ci mooy manque de sécurité lu ne mënoon na faa am ca plateau bi parce que gars yi xol lañ doon waxee te nañ doon waxee mënoon nañ koo jëfee mm-hmm. waaw ñu d'abord ñi ngi masaw njaboot gi nga xamante ni bi jàpp nañ seeni doom mm-hmm. euh, te nekkoon ci palateau ba euh, di ñaan aussi tamit di leen ñaanal seen njaboot génn ba dellusiwaat ci seeni loxo parce que loolu mooy li nga xamante ni bii euh, moom la ñuy lool lu jëm ci détenu politique nag Assane détenu politique la wax détenu politique yi ci seen biir am na ñoo xamante ni bii jàpp nañ leen te mosuñoo demuñoon sax mars am na ñoo xam ni seeni doom tey jii am na ñoo xam ne boo leen laajoon dañaa ne sama doom da doon def lii bu da doon xëy wala muy def nii mm-hmm. indi gis nga ñu bari ñoo xamante ne jàpp nañ leen sans pour autant que euh, ñu nekk ay politique mm-hmm. kon ci seen biir moom am na ñoo xam ne wax dëgg fa yàlla ni mu amee nag ñoo xam ni ay politique lañ mais am na ñoo xam ne du ay politique mm-hmm. waaw am na ñoo xam am na koo xamante ni kii indi woon nga eh, mooy te mu bind alxuraan. ci biir prison ba. moom bu mu génnee la doog a mm-hmm. bokk ci parti politique. Mm-hmm. mais musutoon na nekk ci biir parti politique kon am na ñu bari ñoo xamante bi jàpp nañ leen. Mm-hmm. te nekkuñu ci parti politique. waa émission bi nag il faut tamit euh, lu mel nii am ci. Mm. waaw parce que Pape Ndiaye euh, bu fekkoon ne wax lépp li indi coow li yëpp. du boo ko jëlee tënk ko ci émission bi rek ne moo indi coow li. Euh, du loolu. lu ko indi maanaam damay jël samay missile yi ma doon féetale fee léegi feneen laa koy jëmale hmm. wax jooju moom la nit ñi di toogaale maanaam nit ñi bi ñuy ñëw moom Pam Ndiaye fi mu doon yi sax mën naa gën a ànd ak ñoom sax ci émission bi mais duñ ko gis hmm. waaw parce que am na nu muy waxee rek ñu ne missile ya yóbbu na ko côté bale <laughs> ñoom missile yi rek la ñuy gis waaw missile yi rek la ñuy gis quoi parce que ñoom pour ñoom bi ñuy ñëw dañu jàpp ni ku leen di viser la <laughs> maanaam euh, Pape Ndiaye pour mu defati balance mu normal du yomb parce que moom ci jëmmi boppam mu méngoo tut euh, ku def lu yemele parce que xam nga ab journaliste moom li ko wal mooy warata yori misil maanaam dafa war a yor ab torse di leeral lëndëm gi muy leeral nit ñi muy leer ak leer gi fu mu gis lëndëm rek mu leeral ko. loolu mooy li nga xam ne mooy rôle journaliste mais boo demee ba yor ay missile di loolu. loolu mooy li indi problème bii nga xam ni moom la indi. parce que bu waxutoon wax jooju. bu waxutoon wax jooju. émission bi du am problème. bu du toon ak wax ji mu waxoon ne missile yi fële laa koy jëmale. kon émission bi démb du am problème. kon ñoom Diop Taïf bu ñëwee dinañ mën a dékku. Euh, gajaga lu mu mën a wax amul problème. parce que bu boobaa ñoom ak lu ñu bëgg a def tamit dañuy wax ne ah ki ñuy invité de nit ku jub la si nit ku kii la mais moom mooy problème mu émission bi pro émission bi nekkul euh, ki ànd ak mag yi ak ñu ñëwoon di waxal détenu nii mais ki koy présenté moom mooy problème bi parce que moom la nit ñi gis nii moom ci boppam moo équilibré leen équilibré tout lool foofu la problème waaw parce que ba mu waxee wax jooju rek ci la détruire boppam maanaam moom boppam la yàq comprendre parce que méngoo tout ak kii bi gis nga démb émission bi noonu hmm. bu ko Pape Moussa boo bu defoon hmm. invité gajaga googu invité kii hmm. moom mu nekk ci centre bi yaa ngi dégg problème doo am dinañ def émission ba noppi ñibbi ah, ah kii ñëw daa am lu ñëwaale waaw mais c'est kii ñi ñëw Pam Ndiaye leen invité ñoom beneen bët la ñuy xoolee Pam Ndiaye même bu équilibré dañuy jàpp ni équilibré wu. waaw am na ñu naan itamit waa ji gaja gi ñu eh, kii. boo gisee même bi ñu meree sax li ñu njëkk a wax mooy dàq leen ko. Mm-hmm. waaw comprendre nga. xam nga euh, bu ñu demee ba ne dàq leen ko. Mm. Euh, loolu loolu loolu lu garaaw la. d'accord waru ñoo wax ne dàq leen ko quoi mais en tout cas loolu mooy problème bi dem macha allah. Mm-hmm.